lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci réew mi rek mbokk yi ni leen ko toppal waaye rawatina jëmm ji nga xam ne moom la ñu jàkkaar lool kenn dootu ko présenté kenn dootu ko laajte bu ñu ko waxee moom moo di Serigne Cissé borom tawféex sunu borom may ko ci wàllu xam-xam may ko ci wàllu seet may ko ci wàllu li saxaar may ko ci wàllu ñaan yàlla mu nekk kilifa goo xam te ni nag kilifa la ci biir kilifa yi kilifa goo xam te ni ku doy waar doy waar doy waar yaakaar naa ne mbokk yi yéen ñi ko yàgg di siifur xam ngeen ko bu baax a baax a baax a baax ndax nee naa leen bu réew mi dee jub si wala bu dara dee jub si ci réew mi moom mooy njëkk a ne nangam ak nangam ak nangam waaye tey mbokk yi dama bëgg ngeen teewlu ko te déglu ko bu baax a baax tey lay wax lu am solo am solo ci wàllu koo xam te ni képp bëgg na cee njariñ rek tey nga koy déglu ci wàllu rab ci ni rab di sonale doomu aadama ci yu bare bare tey ngeen koy dégg sëriñ bi maa ngi lay nuyu la ziar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 suñu borom mësa ci ñëpp ñoo ngi baalu àq ñëpp di masaw di ñaanal waa diaspora bi suñu borom defal leen tawféex ak ñii képp koo xam ne génn nga bàyyi say mbokk ak say waajur ci barke Seexul Xadiim li ma lay njëkk laaj mooy en tant que kilifa lan moo tax sa kër du ci fekk yenn nit rang beeg wala yooyu lan moo tax. waa loolu moom bëgg-bëggu doomu aadama la ak suwaak doomu aadama xam nga ñaankat moom ak docteur ñooy am sutura la ah. te sutura daa am solo am solo goo xam ni. Mhm. yonent bi wax na képp koo xam ne suturaal nga sa moroomam jullit mhm. suñu borom dana la suturaal mhm. ci sutura soos nag ci la ni doxee beneen bi ci topp ñun dana doon ñoo xam tamit niti kers la mhm. moo tax ba sutura soos ñuy doxe ci leen fas yéene continuer ba keroog ñuy faatu moo tax kër gi doo fi ñëw fekkante fekk kenn waaw damay fekk fi nit du bari wala ngay dem fekkante fekk diw wala fekkante fekk nangam ak nangam te fii pour nga ñëw fi ba fekk fi nit loolu dem bëggoon naa la ko laaj chaque jour chaque jour moo tax tey ma laaj waa fii moom bëgguñu loolu ndax li ñuy bëgg mooy am na xeeti kilifa yoo xam ne buñ jógee di ñëw fii bëgguñu fii tase kenn ndax la tax ñu sol seen daal di ñëw fii rek kumpa la ba nëbbu ko seeni soxna nëbbu ko seeni mbokk kon yaakaar naa bu ñëwee fii war ñu fee tase kenn ñun lool lañ doxe bëgguñu fii dajale fi ay nit ku nekk di xool sa morom di maskawu wala ku nekk di xool sa morom di làqatu wala ku nekk di xool sa morom kersawu mm-hmm. yooyu bëgguñu ko mm-hmm. te bari na ñoo xam ne saa bu ñu dajee ak ay nit ci bërëbu ñaankat rek mm-hmm. bu ñu demee loolu rek la ñuy waxtaan ndakate mm-hmm. diw nii la gëmee sëriñ mm-hmm. ndakate giw diw day dem ci ah, sëriñ fekk na moom mm-hmm. sëriñ moo ko taxan a jóg moo tax ba yu bëree bëri bëgguñu ko bari na kilifa yoo xam saa buñ fee ñëw rek yenn heure yi lañ fiy ñëw wante fii moom bëgguñu kenn di fi rek moo tax daanaka bu ma nit woowee sax pour ñëw fi bu ma kenn dee woo sax dama naa ko damaa génn wala damaa jàpp ñu bëri xam nañ lool si man dama naa leen damaa génn wala damaa jàpp ndax man noonu laay liggéey bëgg naa ku nekk dinaa liggéey doo xamanteeg doo gisanteeg sa morom mhm. xanaa ngeen dem ba daje mhm. di ni sëriñ bi mos naa faa dem mhm. ñun noonu la ni liggéey soxlawul ay mbooloo dina kii bu doon soxla ay mbooloo mbooloo def na nañ ay preuve beneen bis topp yor na loo xam ne mën naa xëcc mbooloo buñ ko wisan fii léeg leen fii indi duñ ko sax tey ndax yor na bayre yu wér péng yor ñaan ñaani wér péng yoo xam ne bu dee mbooloo mbooloo rek woote mbooloo dayee ñu ndox mu sedd barke mm-hmm. alxuraani karim mm-hmm. ñu dee mbooloo mbooloo rek mm-hmm. man bu ma ci jublu woon tey tey tey tey tey ginnaaw soo boo ñëwee fii kër gi ba ci escalier yi ay nit da ngeen fi fekk wante waaw yooyu fii moom benn numéro laa yor muy 29 29 boobu amul dagg ticket amul intermédiaire man ngay jot direct ku ma woo man ngay jot. sama hmm. numéro 732 29 na man ngay jot direct. Hmm. bokk kilifa yi nga xam ne moom dañ naan secrétaire bi ngay jot ak nañ ko nangam xaaral sëñ bi day neloog day dalloog bu ko kenn yeeg. ah yooyu moom dëgg xam nga nit bu bàyyi ay am rek. Hmm. yaakaar la ñëw ci yow rek. waroo koy minimiser lan koy xoma wala nga koy ñàkkal fayda wala nga koy kii wala ngay dem ba yow day jàpp ni sax yow doo doomu aadama ngay kaweel sa bopp xam nga suñ borom saa boo wàccee sa bopp da lay yéegal te yéegal ak suñ borom moo gën yéegal doomu aadama mm-hmm. Mm-hmm. moom moo ci am solo mooy mm-hmm. ñaankat lim war a def mooy dimbalee ci ñaan gi muy ñaane ngir anka ëllëg julli ak woor baax na am na solo mën naa yóbbu ku nekk àjjana wante boo ci boolee ñaan di ci dimbalee suñ borom mën na laa dimbali waaw suñ borom mën na laa gën a dimbali muy jaam ñi nga yombalal leen seen bopp jaam ñi nga bañ a jafe ci ñoom wàcce sa bopp ci ñoom koo ci mën a dimbali nga dimbali ko ci mm-hmm. loolu moo moo waral wante fii moom boo ñu woowee mm-hmm. ñun ngay jot direct mm-hmm. amul dagg ticket amul bis bii laa fi nekk bis bi maa ngi fee bis maa ngi benn benn kër rek laa nekk benn jëmukaay laa nekk waaw loolu moom moo fi ne mu ñëw ci ci ci sarax ndax des fois sëñ bi loolu damay dégg ñu naan diw lii mooy saraxam diw lii mooy saraxam diw lii mooy sarax ba xam nit ku nekk dafam saraxam waaw doomu aadama ji nekk am na saraxu boppam mm-hmm. waa ndax ci kaw nga xam sarax boobu mm-hmm. ndax yaakaar naa mm-hmm. bari na sarax yi bari na trop trop trop sax waa ndax xam sa sarax moo ëpp solo xam sa sarax moo ëpp solo des fois nga dem ci sëriñ am mu digal la sarax waan sarax ba mu lay digal ci kaw ñaar ñii mën nañ laa digal sarax bi dox ci sa diggante gàllankoor bi tax na nga ñëw ci sëriñ bi wala jafe-jafe bi tax na nga ñëw ci sëriñ wante même pas comme saraxu rawaxaanam nga ne nit ki war saraxu rawaxaanam ba nga xam tey ji saa bu xëyee suba suñ borom dana def mu génn ko ba yoree xewal ko mën naa def mu génn ko mhm. sarax dafa bokk ci doomu aadama mhm. nga xam ne tey ji mën naa la mën nga di sangu guddeeg bëccëg di sangoo bayra ubbeeku kaaraange wante boo du saraxee rek mhm. day feeñ ci benn côté man hmm? ngay am kaaraange gi hmm. wante ubbeeku ko mooy des man hmm. nga man nga di am ubbeeku wante bayra ba moom mooy des kon lu nekk rek am na am na am na am na am na am na yoon nga xam ni sarax li ci njëkk mooy ki lay sarax yow saa bu la diggalee sarax laaj ko ci sarax bi ci lan lay dox mhm. bu dee nag da nga kaa sàkkoon pour ay ñaan nga ne ko sarax bi ci lan lay dox mu ne ci ñaan gi nga may ñaan la mhm. wala saraxaan mhm. wante nit ku nekk war naa mën a xam rawaanam lan lay laaj ban sarax la war a laaj ndax nit ki yaakaar naa bu dee sarax bu weex la war di saraxe di sarax sarax bu ñuul moo ngi rey boppam nit ki bu dee daa war a sarax sarax bu xong di sarax sarax bu we bu ñuul moo ngi rey boppam kon ku nekk rek na nga xam sa sarax te sarax lu ci liñ ci wax mën naa fanq ak dee mhm. sarax day yokkul gudd day guddalu fan mhm. am na xeeti miskit yi dëgër yi cent yi yor naa ci sarax boo xam ne tey ji mhm. saa boo ko dee def yu woow yi mooy dajji nga saa boo ko dee def suñ borom da lay yokkal ay te sara ay say say at mm-hmm. boo war na faatu ren mm-hmm. boo ko defee doo faatu ci at mi mm-hmm. sarax lu wér la nee naa la ba tàyyi ñaan jëmm la sarax mooy roo gi sagam nag jëmm da koy liggéey te mënta am roo yaakaar naa loolu moom du dem kon yaakaar naa lii ëpp solo muy nit ku nekk war ngaa mën a xam sa sarax ba saa boo xëyee suba war ngaa mën a def nangam sarax bi nga xam te ne mooy sa saraxu rawaan ak sarax bi nekk say aajo bokkuñu ndax yaakaar naa képp koo la digal benn sarax sarax boobu pour nga def ko mhm. kon bokkut ak sarax bi nga xam ne saraxaan moo koy laaj ba chaque jour nga mën kaa def mhm. wante léegi saa boo xoolee bu dee nit ñëpp cent pour cent la mhm. quatre-vingt-cinq yëpp da ngay gis ñuy génne soow rek ñoo bari nag teguñu ko fenn lu dul dañuy gis ay nit di génne oh. soow wala yenn sëriñ si leen génne soow génne soow te saabu génnee soow dangay gis ne seen i mbir day gën a jafe seen mbir day gën a critiqué da ngay gis ni sax bu doon dañ cee yor feebar sax feebar boo day gën a metti ci saa buñ génnee soow seenu yaram day mel ni day diis gan gan gan nga xam ne boobaa am na sarax yoo xam ne saa boo ko génnee da ngay woo say rab surtout am na ñoo xam ne danoo yari rab ba pare war ñoo génne lu weex mhm. saa buñ lu weex ñoom ñoo ngi dugal seen bopp di woo seen i mhm. woo seen i rab mhm. nag mooy waral ba jikki-jikki nga gis jikki-jikki nit ki daanu feebar cër yi bañ ñu naa daa paralysé paralysé wut laa ma ñoo jikki bañ ñu naa daa paralysé paralysé wut ngay gis mu dox ay weer ba si yàgg mu tanewaat loolu rab la defaat nit ñi ñooy woo seen rab ci sarax yi nu war saraxe ci lañ ko dul xam nag ba woo seeni rab mhm, mhm. moo tax nag après da leen di indil conséquence ñu naa daa palalis daa abc daa def defu ko mhm, te loolu bari na léegi ci xale jigéen yi mu da da gis xale yoo xam dañ jékki-jékki léegi di daanu léegi mhm. bari na fi nga xam ni dañuy dem ba xale yi sax dañuy génn sarax yooyu da ngay mhm. gis koo xam rek bu xëyee suba day génn soow nga xam ne da koy gis rek di ko toppandoo te loolu baaxul nit ku nekk war ngaa am sa saraxu bopp mhm. ni yére yi yére góor am ak yére jigéen am noonu la sarax yi mel na noonu picc nag damay gis ñu génne ay picc ñanaaw yu naaw picc lan la ci sarax waa picc moom baax na mm-hmm. benn bi ku am ay gàllankoor mm-hmm. baax na ci moom mm-hmm. pour nga xam yan tegtal yan yan yan kii ngay mën a génn yan nombre ngay def pour mën a génn say gàllankoor dem picc romb am ñu génn picc yi def sarax waa baax na ci sarax la sax ndax picc min jàpp tëj ko di ko jox lekk ak naan mooy gis ay moroomi piccam bëgg di génn mënta génn ngay génn ko sax sànni moom sarax la wante bi ci am solo pour nit ki jariñoo ko mooy ku am ay jafe-jafe baax na ci moom waaw moo mooy ku am jafe-jafe rek mm-hmm. koo xam yaram bi jàpp na ne ay gàllankoor ni ay liggéey lu yaakaar mu tasak mm-hmm. wala jafe-jafe yu mu am rek mm-hmm. picc moom baax na ci moom di xëccoo dara tamit xam li mu picc ba nga cay génne baax na ci waaw bu dul mbëri sax bu dul mbëri man mi dafaa damay daw sama oto romb keesu picc ma jënd loolu lépp mhm. di xëccoo dara loolu lépp baax na ci moom mhm. koo xam ne coow li dafa bari ci moom tamit di mhm. génne sarax boobu tamit baax na ci moom ci kaw lim bi nga koy génnee di da génne rek sarax buñ la diggalee fukki dërëm boo ko génnee loolu mooy li gën waaye ñu diggalee fukki dërëm nga génne cent franc tamit yaa ngi sa bopp yi jafe-jafe mooy ni mu toll rek defe ko noonu kon saraxu picc am solo la te damay bañ mu jël temps bi nga xam ne war na noo jaal ci yeneen ak yeneen <coughs> ñu ñëw ci wàllu rab rab sëñ bi sonal nag jigéen ñi fi mu toll nii trop trop trop rab. waa rab nag dafa nekk loo xam ne doomu aadama yëpp am rab. li li waral tax mu sonal jigéen ñi mooy dangay gis ñoo xam ne seeni maam. wala seen dëkki cosaan. dan daan def ay tuur wala seeni maam daan ñaan wala seeni baay daan ñaan dee dem bàyyi ko fi léegi nag daan ñu topp mbir mi léegi nag sagam daan topp mbir mi da ngay jigi-jigi gis ko rek mu dugg ci famille mm-hmm. ñooñu nag lii seen jàngo li leen faj li mm-hmm. lii seen saafara muy ñu xoole xàmb yooya mm-hmm. dem wëri xàmb yooya dem sangatu fa dem tuural foofu bu ko mm-hmm. def suñu borom defal leen jàmm sinon bu dee wër ci sëriñ si di dem tamit pour mu saafaraw day jafe mm-hmm. ki nga xam ne nag da daan sol sol gu gàtt barab dugg ko mm-hmm. wala ki nga xam ne tey da daan jaar ci bërëb rab barab dugg ko mm-hmm. wala ki nga xam ne da daan jël ndox mu tàng di ko tuur ci suuf wala ki nga xam ne day jël day jaar ci ndox yi nga xam ne moom la ni tuur nii mooy fóoti di yeeg ndox yi añi ni tuur ci yoon mu fi jaar barab dugg la yooyu moom boo ñu ci seet see bu soobee yàlla mën na la cee defal ay ñaan bu suñu saafara Xadim dëkkuwaay yi war na dëkk nit ñaa fa dem dëkk moo tax li ni dëkk léegi ci mbedd yi ak pàkk yi rek la ni dëkk mhm. Mhm. mbedd yi ak pàkk yi gis da ngay def gisa eh, defaa da gis koo xam ni mhm. day tabax këram ba raser ba kuule des ci wante rab moo fay nekk saa bu xelam nekkee ci pour mu kuule xaalis bi mu yoroon pour kuule ko da ngay gis xaalis da koy def feneen wala mu yàqu wala mu yàqu ci ay loxoom nga xam ne xelam chaque jour ci noonu lay def ci noonu def ba kër ga dem ba màgget hmm. nga xam ne kër googu day mujj jaay ko jox ko keneen hmm. keneen eggale ko wala kër googu day dem ba faatu bokk fi hmm. nga xam ne day dem ba dëkk fa nga xam ne bu fa dëkkee bu yàggee nag mooy waral miir bi gent nga xam ne da dem ba benn jamono ngay gis miir bi di xobbeeku eh, biri gi mel ni luy ruus feer yi di xumaat nga xam ne tey jii nii moom mi moom moom moom kër gi dana am lu mu ko eggale waaye pour mu jóg jëf ca moo jafe mm-hmm. kon nga xam ni bu teere yooyu bala nga koy jënd danga koy xoolu ba pare ba mm-hmm. xam gën na mm-hmm. même bala ngay tabax war ngaa tojtal fi nga nekk ndax Euh, bërëb yooyu yëpp am na lu fa mos a dëkk bu dul jinne rab mos na faa dëkk mhm. kon yooyu yëpp war nga fa mën a def ay sarax def ay ñaan ba suñ mhm. borom eggaleel la ko mhm. des fois nga gis ko nit ku tabax lu lu loolu tamit da koy waral beneen bi tamit loolu mooy jënd kër goo wërta jënd nam da koy waral nga xam ni rab mën naa laa wax mooy jàpp doomu aadama bi mooy gént di sëy ak kumrus ay waajuram wala ay mbokkam wala ay rakam rab mooy jàpp góor dem ba di ko wàññi ngóoraam nga mhm. xam ni des fois sax awra bi mën na di xool awraam des fois muy rëy ak a tuuti ciy bëtam mhm. wala muy seeg jigéen di gaaw a daan wala muy mballu comme ni xale ji góor yi di def léegi mhm. yooyu yëpp cadre rab la waaw ndax ci kaw rab yooyu nag danoo doonul benn ndax dafa am yoo xam sa àddina la ni topp ci sa wàllum liggéey rek di la yàqal am rab yoo xam ne nag tey jii nii da lay xirtal ci lu bon rek ngay moy yàlla di sobe rek ci loolu lay ci loolu xirtal kon nag yooyu yëpp nga xam ne si cadre rab la mooy def yenn saay jàpp parfois méttitu bopp bi bay jàpp jëbi mhm. yooyu yëpp signe rab la mhm. nga xam ne yëpp képp koo xam ne am nga ko rek baye mhm. ba nga dem seeti maaman mu defal la ci ay ñaan am sarax boo xam ni mën nga ko def ba rab du la jege non sarax bi nga xam tey jii nii rab du la jige moom. man mm-hmm. mënuma laa wax ni la sarax bi bu ko nit ki defee rab dana la jige. Mm-hmm. waaye li li ci am solo mooy bu la rab jàppan. bu mm-hmm. ko xoolee mën naa laa digal ne sarax yi yéeg yi ngay ak sangat bii ngay def pour pour yàlla dimbali la. ci jàngoro bii muy jàngoro rab bi dimbali la sori la. wante même pas nag muy wax ki naa lii boo ko defee. bi yéeg bii boo ko defee rab da yooyu lay nax rek saa boo ko defee rab bi da lay gën a duma. dama gis loo xam te ni ñëpp nee nañu yaa ci sut. ju bare bare bare ay nit ñoo xam te ni xam nañ ma xam nañ la dañ naan ma moo ci sut muy ci wàllu noot ak nopp waa noot ak nopp moom bokkuñu mm-hmm. noot mooy koo xam ne dalaa amal njariñ mm-hmm. muy kilifa mm-hmm. wala muy commerçant wala koo xam ne tey jii nii nitu la daal mu amal la njariñ nga xam ni bëgg nga kaa noot ci sa bopp ba foo ko mu jëm fa côté boobu noonu na feek nopp te bokkuñu nga xam ni dalay amal njariñ nit ku la amal njariñ daal nga xam ne bëggoo seen diggante dara yàqu ko mooy noot nga xam ni par exemple maa ngi jégg lu baax comme kër kilifa yi des fois da nga fa fekk ay taalib yoo xam ne mhm. dañuy bari loolu wante kenn du mën a jóge foofu dem ñibbiwaat mhm. nga xam ne tey jii di dañ lay amal njariñ ba pare di la liggéeyal loo woote ñu nekk ca mhm. guddi ak bëccëg loolu mooy noot mooy sa xar mi nga yar dressé ko comme nu mu koy waxee euh, dressé lan koy xoma nga xam ne tey jii nii boo toogal fi boo ne woon nii rek xar mi day ñëw boo ne ko toogal mu toog comme xaji niñ leen di def loolu mooy noot noob nag mooy ki nga xam ne da kaa bëgg muy jigéen muy góor nga bëgg kaa takk wala tey jii nga ñaane ko ñu bañ wala leneen ak leneen loolu mooy nopp mm-hmm. ngay def seen diggante pour seen diggante mën a neex mm-hmm. ba tey jii nii mbëggeel gi nga yëg moom mu yëggu ko raw nga xam ne mm-hmm. saa bu la gisul dalay xalaat wala mu lay woo téléphone wala muy tëdd di jooy wala koo xam ne ay waajuram dafa bañ pour maye ko nga defal ko loo xam tey ji noobal ko ay waajuram ba ay waajuram d'accord wala koo xam ne ay waajuram dañuy du takk du takk diw nga mën kaa jubbaloo ko ay waajuram ba ay waajuram Mm-hmm. kenn du ko def sa baay mm-hmm. noot kenn du ko def sa yaay ndax loolu baaxul noot laa wax mm-hmm. waxuma la noob noot kenn baatu noot noot nag ñi ko xam xam na li ma kenn du ko def sa baay kenn du ko def sa yaay ndax loolu baaxul <coughs> loolu baaxul de sa yaay da laa jur jur ñeneen ak ñeneen nga koy noot loolu baaxul bala nga kaa def nga nopp sa nga nga ko sax mu sa euh, cofeel gi mu am ci muy am gu gu ko gën a raw sax mais koo wax mun la sëñ Cissé moo ci sut ci wàllu noot ndax pomme de bi waa am na ci yooyu def soble ci yooyu. waa sant yàlla rek ñun makan ñun mënuñu dara. xamuñu dara. billaay du tus yàlla suñu borom moo fi nekk billaay yàlla rek moom moo fi nekk mhm. bu ma defee ma am yàlla la bu ma deful ma am yàlla la bu ma waxee ma am yàlla la bu ma waxul ma am yàlla man samay mbir dama kaa doyloo si suñu borom mhm. moo tax nu ma mën a mel rek damay gëm ne suñu borom la mhm. waa ne li may wax chaque jour yàlla jógul ci nit ñi yàllaa ngi ci biir nit ñi ndax ku nekkal suñu borom mu nekkal la waaw tey ñu ñëwaat ci làmb ji nga xam ne ci la ñu génn muy Tapha Tine ak Balla Gaye coow bari trop mais ëllëgu Tapha ci làmb sëñ bi ëllëgu Tapha Tine ci làmb ëllëgu tafaatin mbër yëpp am kii Balla Gaye mi ko daan toog na ay ay jafe-jafe yoo xam toll na ay mois yoo xam ne ay jafe-jafe aman na ko mhm. wante dafa gëm ni làmbam mooy métier mhm. mu dem defaru ji entraîné ñëwaat mhm. tafaatin du tey kese lay door a am defet xañ na defet bi bu bees bu nekk mooy gën rek wante na gën a defaruwaat am nay mbokk ànd ak i mbokkam yaram ndax ñaan yi ñu ko teg yëpp moom dana ko jàpp moom te ñaani làmb lu tax baaxul muy après daa am yoo xam ni après làmb lay jàpp fi nit ni dafa sëriñ mën na laa liggéey ci làmb mhm. suuru làmb ji doo ko gis wante làmb ji bu jeexee ba am ay quatre jours mhm. ñaan yooyu day commencé fonctionner nga xam ne bu doon tey jii ñaan day téye ay cër da ngay gis rek mbër mi bu bëree ba pare rek commencé am blessure mhm. yaram bi commencé yàqu muy jàmbar ay feebar wala nàng wala ay taab wala ay picc yooyu yëpp daa am ñaan yoo xam dafay yeex fekk ah. fekk jeexul daanaka euh, du fonctionner léegi nag sagam a Mhm. sangatuwaat duggaat ci àll bi ak say mbokk nga dem defarujuwaat mhm. te xam ne am na ñaan yoo xam ne buñ la ko tegee boo ci jugul dëgg dëgg dëgg mhm. saison bii nii mën naa laa wax boo ci bëri woon da ngay daanawaat ndax ñaan yi jot a yi nga xam ne jàppuñu woon ñooy jàpp bu ko defee dimbale ki ngay dajee laa mm-hmm. kon bu làmb jeexee da nga war di sa ngaataat sa yaram toppaat fi nga jaaroon da ngaa war a defaraat mm-hmm. sampaat sa bopp mm-hmm. changé waat ci lu bari côté ngéem bu beeg lépp nga defaraat lépp defaraat sa yaram bu baax a baax a baax mooy war a ba boo ñëwaatee suñu borom suturaal la diggante Serigne Cissé ak Massata Ndiaye waaw sama xarit la sama lépp la Massata nga xam ne bu yàggut gis nga ko fii may def ngénte mu jóge ba Tiwaawoon ñëw fii seet si ma mm-hmm. di sama xarit di sama lépp mm-hmm. nga xam ne tey jii nii dun na bënd ci dara mm-hmm. day dégganteeg man lépp lu muy dugg dafay woo sëñ bi nangam ni laa ko bëgg ma ne ko nangam ba nangam ba ci combat Balla Gaye beeg yëpp def leen wax nañ ci yu bare bare bare masata nag nekk koo xam ne géejawaay kese kese kese moo ko ñor te bëgg naa waa géejawaay xam ni masata ku mel ni moom yombul hmm? gis nga mbëri géejawaay yi hmm. ku ci am combat hmm. nga ànd ak masata Ndiaye suñ borom mën na laa may ndam ndax xam nga lu tax benn masata dafa xam sëriñ masata tegtal des fois mën nga di ko digal fekk na wax nan ko ko bu yàgg wala xam na ko bu yàgg. Mm. kon nag boo ànd ak ñu mel noonu suñu borom mën na laa dimbalee beneen bi ci topp muy deretu géej waaye day daw ci moom. Mm-hmm. muy dafa bëgg ndam boo xoolee combat Balla Gaye bii nii wax ji bari na lépp waana moom moo ko gañe mm-hmm. moo da walal gay Gaye. Mm-hmm. deux heures du matin bi ne suba laam moo doon def tegtal yi ci biir ci biir stade bi moom Balla Gaye gis nga ko dernier moment yi tegtal yi bari moom moo ko doon def béjjën yooyu mu samp yëpp moom moo ko doon def te béjjën yëpp daa def effet boo ko amee rek war nga kaa gën a mën a respecté kon waa Géejawaay war nanoo gën a mën a jox Masata Ndiaye cër bu baax a baax a mm-hmm. baax ci mbër yi mbër yi nii ñu mm-hmm. jox Masata Ndiaye cër bu baax a baax ku ci am làmb mm-hmm. nga woo ko bàyyi ko bis bi lim ci man mënoo ko ci te dafa xam kër yi baax te dafa mën a wax ak ay kilifa man moom sama xarit la bari na làmb yoo xam ne maa ngi ciy ñaan làmb yi mag day am fii Sénégal ma ciy ñaan ginnaaw yàlla moom moo may boole ñooy ma leen ci ñaan te suñu borom da koy may ndam kon damay a ci moom gis nga làmb yi mu ci duggut yëpp yi dëkk mbëri géejawaay yu bëri làmb yu mag yi nga xam te am na géejawaay dugg ci nekku ci gis nga mbër yooyu dañuy daana wala ñu amee jafe-jafe daa am loo xam ne hmm. bëgg ak xam bokkuñu hmm. masata dafa xam sëriñ hmm. bari na seen staff yooyu sax ñoom ñi ngi bari di fees ak yii nii wante masata leen gën a xam sëriñ moo leen gën a nekk ceddo xam nga ñi nekk ceddo di wonew ak ñi nekk ceddo di di làqatu bokkuñu wante masata jàmbaar la de jàmbaar la te li muy def bëgg na ko man moom sama waay la wax naa ko wax naa ko ba tàyyi sama waay la ndax man awma lu dul sama bis mhm. boo bàyyi sa yite ñëw fii rek mhm. man moom dama lay jàpp ngir ngir yàlla rek mhm. waaw di sama waay di sama xarit di sama lépp maa ngi a baax ko bu baax a baax mm, xam naa fi ni ni moom ah, danoo ñu ci seen fête bi victoire daa neex <laughs> di sama waay di sama lépp fan yi sax du yàgg dara ngeen gis ko mu jox ma tiranga tiranga ju rëy ah? yoo xam ni wax dëgg yàlla Sénégal gépp dina ci teg seen bët sama waay la sama waay la du yàgg dara ngeen gis ko mu jox ma wax dëgg yàlla teraanga goo xam ni mhm. teraangay te teraanga bët la teraanga joo xam daal yaakaar naa bu ñëwee hmm. wax dëgg yàlla àddina sépp dinañ ci teg seen bët hmm. sama xarit la man jàppewu ma nit alal hmm. jàppewu ma nit ngir aw tur jàppewu ma nit ngir damay jàpp nit te yàlla tax sess bi nga may def rek ci laa lay jàpp mën sa nit bi nga may def ci laa lay bàyyee man noonu laay def man ku ma nekkal rek dama lay nekkal ku ma mu nekkalu rek ma wan la ne nee rek ne loolu mooy àddina wante sama waaye la sama xarit la sama lépp la wax dëgg ëllëgu Balla Gaye mu defarwaat wala loo gis. Balla moo ngi ci aw yoonam. Mm-hmm. ndax yaakaar naa comme nii mu ko defee rek. Mm-hmm. na dem defaru juwaat bu ma ko doon euh, digal daal. Mm-hmm. dama koy wax ni daal na demaat INSEPS. entraîné ji victoire bi neex na wante bu defee deux semaines trois semaines rek. nan ko daggalaat bi mu dem INSEPS liggéeyaat. ba saison bi ubbi. bu ñëwaatee dana dana Balla na meleen bu njëkk dana mel nu ko rawaat. Hmm? waaw ah gisoo Balla biir beeg yëpp daanaka deñ na. Hmm. wàññeeku na bu baax a baax mystique war na defar waat yaram. non moom <laughs> wax dëgg yàlla Balla moom fi mystique jàpp ko moom. Hmm. yor na ay bagage yu muy sangoo yooyu moom du dara mhm. daaruñu ko ba mystique di ko jàppale te mhm. kenn tëkku ko tamit mhm. te gàllaa jàpp ko wax dëgg yàlla daa ñàkk na jekk far jekk loolu moom daanaka <laughs> moom jëruti kii li mu ko wax daal na dem entraîné ji ñëwaat ku ko yàlla booleel mu bëreek moom santaat yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ñaanal si Muntaxa suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te mu wér di ñaanal tarixa yëpp ti daan xaali laaj hôpitaux yi suñ borom yëkkati leen ba suñ borom musal ci ñëpp ñi naan caabi moo leen féete ginnaaw caabi féete leen kanam mhm. suñ borom musal ci ñëpp euh, di ñaanal waa diaspora suñ borom defal leen tawfeex ba ñibbi seen réew mhm. ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala